asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag comme ni ngeen ko xamee ñu ngi mardi 17 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem yëglu déglu yëglikaay yi li ñu xëy tey indil ñu ko ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 17 août 2021. dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreeku yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk ña ca xëy fës bokk na ci Gaston Mbengue ak Balla Gaye numéro de ak Bombardier yëglikaay ba nag moom moo xëy tey dinu xamal wala Gaston Mbengue moo fa xëy dinu xamal combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ba ñu dàqoon léegi Gaston Mbengue nag nee na daal soo bëggee dëgg-dëgg lamb ja la 7 novembre daal la ko fas yéenee tëgg yëglikaay ba xëy tey ñëw dina ko wax wan ñu Gaston Mbengue Gaston yemu ca beneen combat boo xam ne tëgg na ko mu war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang Gaston Sow nee na le 4 avril 2022 incha allahu rabbi la ko fa yéene tëgg beneen combat boo xam ne Balla Gaye 2 war na koo bëril Gaston Gaston tamit nee na diggante ma Gris Bordeaux lay doon te booba combat tamit juillet 2022 la ko Gaston Mbengue fas yéene tëgg Gaston nag la tax mu xëy tey di wax loola neen daal bokk na ci li mu jàpp ne coronavirus ba mu ngay wàññeeku te itam mu ngi ñaan yàlla mu jeex tàkk ba mois de novembre ñu mën a dellu si ci làmb ji nee na nag waxtaan ya moom mu ngay am ci diggante ma ka nga xam ne mooy gouverneur u Ndakaaru ak ka de sport ngir mbir ya mën a tege ci aw yoon ba làmb ja ñu mën koo commencé waat loolu Gaston Mbengue moo xëy tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne tey yëglikaay bi xëy na tey ñëw dalal ko muy Xaadim Samb mi ngeen xam nekk ci làmb ji di ab communicateur traditionnel waaye tamit nekk promoteur boo xam ne day day tëgg làmb tey nag ca mbay Guèye la xëy di ca wax ñëw na ci Mbaye Guèye na mbay Guèye daal nekkoon na jàmbari fakk tëdd joo xam ne ne maanaam moom ñëpp maanaam moo moo li tubaab wax naan seul contre tous moom Xaadim Samb loolu la jàppe Mbaye Guèye nee na tamit maanaam combat ba mu ko nawloo bokkul sax ak combat am ak Sanjango bi nit wax te ñu tudde ko ca le tigre de Fass nee na moom combat am ak Souleymane jaw nee na ca la jàppe Mbaye Guèye nee na tamit combat booba mooy nekk combat bi nga xam ne moom la jàpp ne moo ko taal Xaadim Samb tey ñëw na ci lu yaatoo yaatu ci ka nga xam ne moom moo di Mbaye Guèye waaye yëglikaay ba mu jógee ca Mbaye Guèye ñëw ci koo xam ne nii tamit Falaye Balde lan kay wax yëglikaay bi topp ko de A à Z maanaam fa mu commencé ak fi nga xam ne ni daal fa la mujje yëglikaay bi ne na mu nga juddu ci atum 1932 fa nga xam ne moo di ca Guinée Bissau moom Falaye Balde yëglikaay bi ñëw na ci moom wan ñu aw foto moom ak Doudou Bakassar yëglikaay bi ne soo bëggee dégg dëgg Falaye la mu bëre ci ay combat xeetu bëri gi foo ko takk weesu na ko tey itam maanaam la mu ca am defet maanaam nekkut loo xam ne ni lu bëri la ak Falaye fa mu jaar nekkoon koo xam ne tamit doomu ay baykat la waaye ba mu jógee fa nga xam ne moo di Guinée Bissau dugg si fa nga xam ne moo di ci Sénégal Sénégal daal la fi commencé di wane boppam ci lutte simple bi yëglikaay bi ne na lutte simple boobu toog na ci lu mat ñeenti weer yoo xam ne nit mënu ko cee laalal suuf am na mbëri moo xam ne tamit yëglikaay bi ne na góor a géey lañ ko doon wax ci wàllum bëre dóor la bëre woon ak Fallaye Balde waaye bu bañ ca jógee kera Fallaye Balde hôpital la ko mujj yóbbu ndax toog na fa ñetti weer yoo xam ne la ko ko yóbbee mooy dóor ya ko Fallaye dóoroon yëglikaay bi ñëw def nañu ko def na ko mel ni kon moom nekkoon na jàmbaar joo xam ne jàmbaari fakk tëdd pire la woon moom bàyyi Ama Balde yëglikaay bi mu xëy ñëw toppal ñu ko keneen koo xam tamit nekkoon na école de Fallaye Balde ñu naan ko général Malick yëglikaay bi na ren maanaam mooy mbër mi njëkk a gagné la nga xam ne moo di tournoi wu li simple moom général Malick yëglikaay bi na boo xoolee nag li mu gagné ren toll na ci ñetti gala benn oto yëglikaay bi na ak deux millions six cent vingt mille francs CFA loolu la général Malika jot a gagné ren yëglikaay bii di sunu lamb moo xëy tey toppal ñu ci lu mel ni ki noonu buñ fa jógee fa ñuy dem mooy fa nga xam ne moo di ca record record nag moom kan fay fekk benn xale bu ñuy wax Pape Ndoye numéro 2 la mel ni ki daal mu ngay maintien combat mag wala boog mu ngay mencee rythme ba nga xam ne daal moom mooy rythme entraînement am yemuñu ca buñ jógee ca Pape Ndoye numéro 2 ka ñuy jubali moom moo di bombardier bombardier daal yëglikaay bi tey xëy na dalal ko mu waxtaan ak Assane Walu Gaye waaye la mu xam ne daal moom bombardier ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux ma nga xam ne moo jiite les lutteurs en activité ak Zarko Bombardier xëy tey wax bu baax a baax surtout Zarko Bombardier ne na ko xoolaatal wax ndax na mu toog ci benn wax wax yoo xam ne daal amee ni mbër la ñu war a doon surtout bu ñu amulee ay combat nee na loolu kay boo taxawee di ko wax ëllëg ku leen ko jiiñ nu ngeen koy mën a bañe te nee na loolu ñuy wax dañ ko war a xoolaat xool ni ñuy waxee ndax nag na ay wax balaa nga koo wax da nga koy jàngat xool ko xoolaat ko Bombardier loolu tey la xëyee tey di ko wax ka nga xam ne moo di Zarko xamal ko ne daal wax ju bari moom xam la ngay wax da koy gën Gris Bordeaux tamit lu mel noonu la ko Bombardier wax xamal na ko ne daal mbëri du ñu ay dof ay nit njaay lanu te itam nekkuñu ñoo xam ne dañoo war a wàcc ci mbedd yi rek naan danay xeex ak dóorante Bombardier nee na loolu amul ne na leen yéen ñaar ñi yow Zarko yaag Gris Bordeaux Bombardier nee na leen xool leen bu baax a baax seen communication xam la ngeen di wax ndax nag mbëri ñi ci nekk ñépp ca kaw ba ci suuf ku ci ne ab responsable nga te itam kenn nekku ci jubadi koo xam ne wala sam xel da matadi ba tax xat gi lay na rek nga wàcc ca mbedd ya naan da ngay dóore wala da dox doxu ñaxtu wala da ngay agressé moo tax tal ja tey xëy ñëw ci record li leen wax lu mel ni ki noonu waaye fa nay dellu jeexal la fa mooy yëglikaay bi di suñu làmb tey nag dafa ñëw ci les promoteurs de mel ni ki ñoom ñëpp tey wan nañu leen ci aw photo la ko commencé ci Gaston Luc Nicolaï Serigne Modou Niang Jax Dieye Sène Pape Abdou Fall Fallou Ndiaye Baba Diaw Ami Farhat Xaadim Samb Lay Ndiaye ba Sambay Fall Assane Ndiaye moo xam presse la Boubacar Niang ba ci Sidi Diakhaté yi daali ñi ba ci Gibson maanaam Jibi Ndiaye ak Ndeye Ndiaye tey seen yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ñooñ mel ni ki nag ñii ak ñeneen ñoo xam ne des nañu ñoom ñooy promoteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk di doxal làmb di joxe ay avance kon ñii tamit jar nañoo jaaraamal waaye tamit jar nañoo ñaanal ndax ñag ñoom promoteurs yi li ma leen di jàppee mooy jikkoy baykat la ñu yore ndax baykat ba mooy dem bu noor jotee daal di faru di xaar yàlla taw ngir mu mën a bay ngir mën a am lu mu yaakaar ëllëg góob ko promoteur tamit noon lay def ak mër saa su ne day jël xaalisam jox ko di xaar ab dat ñëw ñu mën ko bëri ngir mu mën caa am dara kon jaaraama promoteur yi jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay loolu lañu tey xëy indil ñu ko muy sunu làmb la wala record euh, tey loolu lañ ñu indil tey ci seen ay xët yu njëkk bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la nag ah tey moom la mu ñu xëy indil gis ngeen ko noonu Gaston Mbengue ngi noonu taxaw Balla Ngongu taxaw Bombardier Ngongu taxaw mu mel ni kon Gaston datu ay kombam la xëy di ko waxee rawatina combat bi nga xam ne mu ci gënoon jigéen waroon dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye léegi nag leer na nee na la le 7 novembre daal incha allahu rabbi la ko bëgg a tëgg mu Gaston loolu la wax yemu ca tamit joxe na datu komba Balla gay 2 ak Boy Niang bu combat tamit mu ko bëgg a tëgg euh, ci mois weer wi nga xam ne ni moo di 4 avril 2022 la ko bëgg a tëgg Balla ak Gris tamit mois de juillet 2022 la ko bëgg a tëgg loolu lépp ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee te tal ko nag loolu lépp bu mënee am na li mu li tax mu koy yaakaar mooy gis na ne coronavirus bi mu ngi sew moo tax waxtaan yi da am na ci digganteem ak moo xam gouverneur la moo xam président CNC la moo xam ministre des la pour loolu mën a am ñu ñu ngi ñaan yàlla loolu mu bëgg yàlla na réussir que li mooy yàlla na corona bi dem ba loolu mën a am parce tamit. actuellement vraiment mbër soxlawaat nañ wàccaat ci géew bi soxlawaat nañ bëree promoteurs yi dugaloon seen xaalis tamit soxlawaat nañu ah organiser seen ay journée ba mu wàcc leen bañ defiwaat leneen wala ñu diwaat leneen parce que yaakaar naa fi mu nekk nii moo xam mbër bi la moo xam promoteur bi la ku ci ne nga gàddu vraiment ku ne xam na ne diis na gan na ci sa côté ñoom ñaar ñoom ñoom côté yépp parce que tamit ki la jox xaalisam boo sañoon la tax mu jox la xaalisam bés day ñëw nga nga nga def loola ba ngeen mën a tàqali ko yow mi jox sa xaalis tamit boo sañoon bés day ñëw kooku mën ngeen meen mën a gérer liggéey ba loolu taaxal yi ko am ku nekk dem kon ñu ngi ñaan yàlla euh, waxi Gaston jooju daal yàlla na yàlla def mu antu maanaam làmb yi mën a am ba promoteur mën a tëgg seen ay journée parce que ñi waajoon mois d'août bi liñ ci waroon tëgg bëri na trop mais gis nga jaam ak pexeem yàlla ak i dogalam yaa dégg bu nu continuer ba tey ñëw ci yëglekaay bi gis ngeen tey mbay Gueye tamit dikkaat nañ ci moom kii wax ci moom mooy Khadim sam de ay témoignages Père Khadim Samb ñu koy di ko ziar sunu papa Père Khadim Samb bu RTS Père Khadim Samb bu bu 2STV Père Khadim Samb bu journaliste Père Khadim Samb sama mbokkum bawal bawal waaw yaa ngi dégg Père Khadim borom jibi téri bi cëri mu koy nuyu di ko ziar tey moo xëy tey wax ci Mbaye Gueye ah, di wax ci moom ay di def ci moom ay témoignages moom nag defe naa ne bu defee ci ay témoignages dafay war a nekk lu nga xam ne dina dëggu yaa ngi dégg parce que tax mooy dafa fekke te maa fekke bakkan lay laaj yaa ngi dégg ndax fi mu ñëw yëpp ci mbay gi boo ko xoolee li mu wax ci moom lépp lu ci ne rek lu mu teew lu mu fekk te lu mu xam la ndax jàpp na ne sax combat bi nga xam ne moom la ñuy jàppe mbay gi ba tudde ko la tigre de face mooy combat ak ne na combat boobu moo ëpp coow xëy na waaye ne na combat bi war ne mbay gi dëgg dëgg dëgg nee na digganteem ak Souleymane Diaw la revanche parce que ne dañoo njëkk a la wax su ma jublee ca mbay Gaynde niil wa ñu wër bëriwaatee ki nga xam ne ni moom moo di mbay Guèye dal di ko daan moom gis na ne Mbaye Guèye foofu la tàkke moom mi nga xam ne moom mooy xaadim sa moom ak yeneen yoo xam ne wax na ko ci Mbaye Guèye muy koo xam ne yaakaar na tamit mag la mi nga xam ne ah ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram suñu papa xaadim sam ndax nit bi nga xam ne moom man un historien laa koy tudde nit la ki nga xam ne tey soir Sénégal bëri lu mu ci mën wax moo yeneen i moroomam yu fi nekk moo tax ñooñu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu leen yàlla sàmmal ndax bokk nañ ci ñi nga xam ne sama genre yi ñoo leen di guider di leen teg ci yoon di leen wax nga xam ne daf ñoo mag te ñoom ñu dundoon ko fekke ko kon ñoom c'est des références papa maa ngi lay ziar bu baax a baax yëglikaay bi tamit tey xëyati na def lu am solo moom suñu làmb topp Falaye Balde de A à Z comme noonu mu ko waxee ah toppal ñu ko Falaye Balde bàyyi Zil Balde Falaye bàyyi Ama ak yeneen champion yaa ngi di Falaye ah maami Jacob Balde nekkoon koo xam ne nii macha allah mbër mu mag wane boppam si lamb def loo xam ne nii lu doy doy war léegi bi ne ñëw na si moom ak 137 combats yi nga xam ne def na ko moom Falaye Baldé amu ci lu dul benn defet ak ñaari match si nii nekk koo xam ne nii Guinée Bissau la jóge ah, dugg si Sénégal ba fi dugg see itam ci lamb lam fa def. boo ko doon li ko yëgle ka léeg-léeg li la ci mën a dimbali daal nga ubbi sunu làmb tey nga jënd ko ubbi ko rek déglu wala nga jàng ko seet xam li Falaye def jaar jaari yi ñëw nañ ci lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo li mu jot a def gis nga photo boobu ñu ñu wan diggante mu taxaw ak Doudou Bakassar mel ne gis nga boo nekkee xale macha allah nit day soppeeku Falaye ak photo yi ngay gisaat noonu ci moom moo lay wane nit day soppeeku mais loolu mooy àddina ñu leen di ñaanal yàlla njéggal ak yërmande sunu borom barke yonent bi sallallahu alayhi ba tey bu ñu continuer beneen xale boo xam ne ci école de Fallaye Baldé fa la fële ñu naan ko général Malika yëglikaay bi ñëw na ci moom xam ne ren ci lit simple fii rawatina ci région de Dakar mooy mbër mi ci njëkk a naru moo ci njëkk a jël trophée ah, Jax moo ko tëggoon yaa ngi dégg euh, moo tax yëglikaay bi na ren trois gala la gagné moom général Malika am lu toll ci deux millions six cent vingt mille francs ak benn oto loolu la jot a gagné ren yëglikaay bi moo xëy tey toppal ñu lu mel ni ki doon moom général Malika ngeen di ko gis noonu ah moom général Malika muy xale boo xam ne tamit vraiment lamb am na ci moom yaakaar ndax doxalinam mën na bëre am na fugg te itam boo ko gisee da ngay gis ci moom arña bu leer moo lay wan ne moom itam champion bi nga xam ne bu jara bàyyi xel la ëllëg bu ci lancé bi mu nekk ba tey bu ñu continuer joge foofu dañuy dem record tey ba tey les arènes gisuñu ko tey moo tax gisu ngeen ko fi ñu leen di nuyuwaat di leen ziar waa les arènes mais dañuy dem record record bu ñu fa demee boo ma jëlañ fay fekk wax ju nga xam ne Assane Walla Gaye moo ñu ko indil mu mel ni kuy recadré ki nga xam ne nii moom moo di Zarko la Gris Bordeaux moom Bombardier defe naa ne nag euh, la ko tax di wax parce que su su ma jàngatee article bi yaakaar naa wax ja ca Lutte TV la ko waxee Euh, waa recours reprendre ko muy wax ju am solo parce que jàpp na ne Zarko setan na ko muy wax ci ay plateau télé Bombardier wax te la mu jàpp ne moom la Zarko di waxe waa mbir ya warta demee noonu maanaam mbëri bu fekkente ne bëri wunu war a ce que buñ doxal est ce que duñ doxal ne wala a wala dañoo war a doxale moom daa gis ne loolu du ay wax mbër waree su ko tudd sax di xalaat agression wala jël yëf yi jàmbur moo tax Bombardier nekkoon nag Zarko xolaatal bu baax li ngay wax xamal li ngay wax te itam bëgg a wax bu mu la tax di wax ay wax dafa war a teg ci aw yoon pour ñu koy dégg loolu waxi Bombardier la jëmale ko ci rakkam Zarko Zarko itam yaakaar naa conseil yooyu ko Bombardier dox en tant que grand frère dina ko war a mën a accueillir jariñoo wax ji ndax nit ki nag des fois ki lay critiquer dama naan souvent moom moo la bëgg mais ki nga xam ne daf la seetaan ngay dugg àllab njaaxum rek di waxi toj toj mu bàyyi la ci biir kooku moom dama naan sa est-ce que yéene na la mais ki la yéene mooy ki nga xam ne da lay gis nga wax wax ju négatif mu woola wala mu critiquer la ne la warta demee nii yaa dégg yemu ca Zarko ñëw na ci ka leen jiite muy seen président ñoom les lutteurs moom Bombardier muy Gris Bordeaux wax na ak moom mooy itam ne na ko dégg na ko muy xamee ni mu waxee jàpp na ne loolu warul demee noonu parce que ay mars ak ay wàcc ci tali di mar ne na yooyu est-ce que noonu la war a demee effectivement dama naan bon li war a am mooy Sénégal lañ ne ñun ñoo bokk réew mi defe naa ne ay mars comme ni mu ko waxoon keroog laa lay wax ay toj ay doxi ñaxtu yooyu ku mu neex parce que constitution Sénégal maye na doxu ñaxtu may na mars may nga def ko ci defen bi nga xam ne pour man da ngay def comme citoyen sénégalais bi nga xam ne la mooy def da koy teg caw yoon ñoo encadré la nga wax li la naqari sa autorité parce que autorité bi ku am loolu naqari di nga ko ko wax waaye nag li fi amoon encore une fois dama koy ñëw di ci ñëwaat ci mois de mars loolu moom soxlawuñ ko ci Sénégal déedéet parce que loola dama naan du war a am parce que li tax mooy réew mi dëppoowul noonu doxewul noonu parce que réewum kilifa ay kilifaa fi tëdd mag ñu baax a fi ne réewum teraanga la teraanga nag fu ñu ko waxee ab yar day am teggin day am sutura day am kon defe naa Bombardier tey mu jox ay conseil dinañ ko war a mën a bàyyi xel ndax lu mu metti metti seen la moo xam Gris Bordeaux la moo xam Zarko la waaw te itam nag yaakaar naa euh, képp ku nga xam ne nii moo la naan xoolal sa toogin comme ni sànq rek am na lu mu la yéene bëgg na sa toogin gën a jekk kon xam naa ne loolu ay conseil la nañ ci bàyyi xel te ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk su ma fa jógee damay dikkaat sunu làmb ak tey li mu def tey affiche bu rafet macha allah fesal ci promoteurs yi tous les promoteurs a ngi noonu yaa ngi gis noonu suñu papa Gaston le doyen ak Luc Nicolaï Serigne Modou Niang ñooñ nga xam ne mën nañ ne ñoom ñett ñooñ ci kaw wax dëgg yàlla ñoom ñooy les doyens parce que boo xoolee Gaston depuis 92 ba tey mu ngi fi Serigne Modou Niang après ñëw Luc Nicolaï ñëw après ñi ci des doog a ñëw ñoom Assane Ndiaye ah ñoom ñooñu après ñëw ñoom Pape Abdou Fall ñoom Dieye ñoom Fallou Ndiaye ah, gis ne promoteur tamit am na relève parce que tey boo boo jëlee ku mel ni Idaali Ñing jël ku mel ni Sam production jël Baba jaw jël Fallou njaay hmm, jël ñoom Prince ak ñoom Gibson ñooñu relève lañ ci promoteur u làmb boo ko jëlee c'est des c'est des jeunes yu nga xam ne relève promoteur lañ ba ci jéey seen ñoo ñëpp ay relève lañ ci làmb ci promoteur ndax boo jëlee tey Gaston wala Ligue wala Sëñ Modou wala Pape Abdou Fall wala euh, Sidi Diakhaté man naa ne ñi ma leen limbal ba ci Jax ak ak Pape ay mag la ñuy doon ci ñenn ñi ñenn ñi sax est-ce que matuñu leen sax waajur effectivement noonu la demee mais nag loolu moo lay wan ne ñoom itam jaaraama seen jigéen day njaay Tyson tamit mu ngi ci am na promoteur yoo xam ne sax newuñu ci affiche bi mais ku ne gis na tamit ren ñëw nañ ci làmb ndax jamaïcain ku ne gis na lu mu am solo lu muy liggéey ci làmb Vox Arena noonu ah euh, Ama ja tamit jot na ñëw ren ah ñoom ñëpp ak yeneen ak yeneen ah suñu frère Boubacar ñaa tamit gis nañ ko ci affiche bi muy loo xam ne rafet lii dafa am solo trop parce que ñoom ñii comme li ma xoon sànq rek ñoom dañu jaar di rendre hommage les promoteurs parce que tamit vraiment ñoom ñooy dundal làmb parce que li tax ñoo ko dund ñooy bailleurs yi ñooy joxe seen xaalis muy metti trop ci souvent ci ñoom de tar lool ñuy jànkonteeg mettit yi ak teq-teq yi di ko fexe ba di ko réussir kon maa ngi leen naan jaaraama promoteurs yi waaw tey moom mention lay defal tous les promoteurs de lutte ci réew mi mu jël nag sama mention spéciale boobu teg ko ci seen loxo kilifa muy Gaston Mbengue ndax mooy kilifa gi loolu la yàlla dogal ndax bu dee si at moo ci mag bu dee ci tëggum làmb actuellement ña fi nekk moo ci jiitu te itam macha allah kon lépp moom lañ koy jox tey mais tamit dañ ciy profité walla rek jaale waa euh, euh, Sénégal rawatina jullit yi parce que tamit ñàkkati nañ beneen xalif généraux bi nga xam ne moo nekkoon fa nga xam ne moo doon ca waa euh, fële. waa kër sëñ Abbas Sall ñu yoon doon ko wax sëriñ man soor defe naa noonu la tudd moo génn àddina yaakaar naa ne démb ñu ñaan yàlla tamit yàlla jégal ko taf ñu si barkeem mu mel ni tamit fan yi vraiment xaw na metti trop parce que lu toll si ñetti kilifa yooyu génn àddina muy yoof di Thiénaba ba ci eh, Louga foofu ah famille Abbas Sall loolu du sëñ Abbas Sall famille loolu lu doy waar waaye nag loolu lépp suñu borom la rek ndax la sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waxoon moo ci ne rek noonu na ku tiim bàmmeelu yonent bi ah sallallahu alayhi wa sallam nana beneen bàmmeel boo tiima ci rek war nga koo mën a muñ ndax nag ngën gi mbindee fa gën ñëpp te te lu yàlla bind moo tax te ñun jullit la ñu jàpp te loolu mooy li am yàlla na yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi di jox ñëpp rendez suba mais di nuyu Asi Diagne depuis noo ak sot soxna Asi maa ngi lay nuyu yow mention spéciale Asi bu xarañ loo yow kenn du yow ci man maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax aw Jóob tamit Touba aw Jóob bu Balla Gaye tamit du ma ko fàtte du ma taay di ko ziar moom tamit suma rakk la suma jigéen la maa ngi koy bëgg bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne nii tamit ñoom ñooy waa groupe baax yëpp yëpp maa leen di bëggee président Massamba Dieye Sora Malick Lamine Bouma seen Issa Elimane Calki yéen ñëpp su ma limee dinaa juum ah Marème Ball booy ëma tout ah, ak Bas mu tafaatin yéen ñëpp bëggee naa leen yàlla na seen jàmm yàgg parce que ñun tamit maak ñoom demb la rawatina sëñ xaadim sëñ xaadim kenn du moom xaadim ja Seydi maram kenn du yow ak lay lay bu fas yàlla na jàmm yàgg